sama doole sama xam-xamu bëre sama jom ak sama fit laa teg. waaye nag amateur doon en direct de. pay-per-view la ci seen affiche point com. bëri. doomu dangu. Gora Sock ndeysaan doomu dangu gis li mu jot a wax sànq nee na nañ ko jox ay moromam. nañ ko jox ay moromam nañ ko jox ay moromam. bëri nag Tyson 2 Tyson 2 daan ko waaye nag léegi nee nañ du ñu bëre parce que léegi ay mbokk lañ mbokk dafa feeñ. Lebu gi la Tyson 2 mooy wane noonu ginnaaw xam naa ne combat buy gaaw lay doon Fatim buur combat buy gaaw moom lay doon waaye xam nga tey xel yëpp day dellu ci dem ci Eumeu Sène ndax nag bul fàtte ni Tyson 2 Eumeu Sène moo ko daan ëmb indi ko arbitre gi noonu di wax ak ñaari mbër yi ndeysaan 19 heures 58 minutes wuroo dem na këng waay mag dem gis nga gis nga day gaaw day gaaw la min da koy daan wala lan da koy daan wala lan góor a soog tee nga tee ci Tyson 2 góor a fàq na Tyson 2 dafa mën a bëre. na jox seen Tyson mën a bëre ndax góor a deful carte appui. carte appui. Tyson 2 daan. ndax góor ndax góor a deful carte appui. Tyson 2 dafa mën a bëre. góor a teeyal. la régie ci Tyson 2. dañuy bëre waat. day dañuy bëre waaw kon lan moo taxoon arbitre sifflé. xam naa dafa juum comme keroog li amoon ci Boy Niang Lac de. mais nag erreur ngi nii. waaw warul sifflé warul sifflé te du joxe verdict. mais góor a soog na tey ci Tyson dëgg. tey mais mais ni léegi góor a soog ba ma gisoon ndar ak bi ma gis. du benn du benn ñu ngi leewaatoo ñu ngi leewaatoo song ko song na na def da wala trois wala trois laa ilaaha illallaah Gora Sock Tyson 2 ñu ñu ngi leewaatoo seetaan leen di ngeen ko seetaan di ngeen am ralentir bi seetaan leen Gora Sock Tyson 2 mais Gora lan moo ko teex ñu ngi bëre ñoom ñaar lam fa ñu ngi bëre soogoo wax la oh la lan mooy Tyson 2 est-ce que Tyson 2 est rëppul rëpp yi bari na góor. rëpp yi bari na ragal naa ni am na ay quatre appuis man gis naa loolu. ay quatre appuis munu cee ñàkk yi ma fi gis munul ñàkk quatre appuis Tyson 2 góor a soog bu ñu xeexee léegi mu jeex song na song na daan na ko góor a soog daan na Tyson 2 góor a soog daan na ko ba toog. Eh, mais recours laa gisa recours ragal naa dina am waaye lu mën a am la régie danañu jox ralenti waaye ci li ñu gis mooy ko Gora Sock daan na tailleur yi doomu dangu Gora na ndeysaan doomu dangu gis li mu jot a wax sànq nee na nañ ko jox ay moromam nañ ko jox ay moromam bëre nag Tyson 2 Tyson 2 daan ko waaye nag léegi nee nañ du ñu bëre parce que léegi ay mbokk lañ mbokk dafa feeñ lébu gi lébu gi la Tyson 2 mooy wane noonu ginnaaw xam naa ne combat buy gaaw lay doon Fatim buur combat buy gaaw moom lay doon waaye xam nga tey xel yëpp day dellu ci ginnaaw dem ci Eumeu Sène ndax nag bul fàtte ni tey sante Eumeu Sène moo ko daan ëmb indi ko arbitre gi noonu di wax ak ñaari mbër yi ndeysaan 19 heures 58 minutes Wuroo dem na kën waay mag dem gis nga gis nga day gaaw day gaaw la min da koy daan wala lan da koy daan góor a sottee nga tey ci Tyson 2 góor a fàq na Tyson 2 dafa mën a bëre. na ko jox seen Tyson 2 mën a bëre. ndax góor deful carte appui. carte appui. Tyson 2 daan. ndax góor ndax góor a deful carte appui. Tyson 2 dafa mën a bëre. góor a teeyal. la régie nañu ci Tyson 2. dañuy bërewaat. day gaaw dañuy bërewaat. mais dañuy bërewaat. day lan moo taxoon arbitre sifflé. xam dafa juum comme keroog li amoon ci Boy Niang de mais nag erreur bu mag a ngi nii waaw warul siffler warul siffler te du joxe verdict mais Gora na tey ci Tyson dëgg tey mais mais mais Lamine doo nit da nga ba ma gisoon ndar ak bi ma du benn du benn ñu ngi leewaatoo ñu ngi leewaatoo song na ko song daf na kàddaa bi da wala trois wala trois laa ilaaha illallaah Gora Sock Tyson 2 ñu ñu ngi leewaatoo seetaan leen di ngeen ko seetaan di ngeen am ralentir bi seetaan leen Gora Sock Tyson 2 mais Gora lan moo ko teex ñu ngi bëre ñoom ñaar lam fa ñu ngi bëre soogoo wax nañu oh la la lan mooy Tyson 2 est-ce que rëppul Tyson 2 est-ce bari na góor rëpp bari na ragal naa am na ay kat appi man gis naa loolu. ay kat appi munu cee ñàkk yi ma fi gis munul ñàkk kat appi Tyson doy góor a bu ñu xeexee léegi mu jeex songu na song na daan ko góor a soog daan na Tyson doy góor ko ba toog. Eh, mais recours laa gisa recours ragal naa dina am waaye lu mën a am la régie danañu jox euh, ralenti waaye ci li ñu gis mooy ko góor a soog daan na taari doomu dangu Gora Sock ndeysaan doomu dangu gis ngeen li mu jot a wax sànq na nañ ko jox ay moromam. nañ jox ay moromam nañ ko jox ay moromam. beneen nag Tyson 2 Tyson daan ko waaye nag léegi nee nañ du ñu bëre parce que léegi ay mbokk lañ mbokk dafa feeñ. lébu gi lébu gi la Tyson 2 mooy wane noonu ginnaaw xam naa ne combat buy gaaw la yor Fatim. buur combat buy gaaw moom lay doon. waaye xam nga tey xel yëpp day dellu ci ginnaaw dem ci Eumeu sen ndax nag bul fàtte ni tey seen Eumeu Sène moo ko daan ëmb indi ko arbitre ngi noonu di wax ak ñaari mbër yi ndeysaan 19 heures 58 minutes Wuroo dem na Këng waaye mag dem. gis naa day gaaw day gaaw la. Eh. koy daan wala lan da koy daan wala lan góor a nga tey ci Tyson 2 góor a fàq na Tyson 2 dafa mën na ko jox seen. Tyson 2 dafa mën a bëre. Ah, ndax góor deful quatre appuis. quatre appuis. Tyson 2 daan. ndax góor ndax góor deful quatre appuis. Tyson 2 dafa mën a bëre. góor a teeyal. la régie dañuy préparé. góor a teeyal ci Tyson 2. la régie. dañuy bërewaat. day gaaw dañuy bërewaat. mais ah, ah, dañuy bërewaat. day gaaw waaw kon lan moo taxoon arbitre sifflé. xam naa dafa juum comme keroog la amoon ci Boy Niang. Lac de. mais nag erreur bu mag a ngi nii. waaw warul siffler warul siffler te du joxe verdict. mais góor a soog na tey ci Tyson 2 gu. tey mais ni léegi góor a soog ba ma gisoon ndar ak bi ma gis. du benn du benn ñu ngi leewaatoo ñu ngi leewaatoo song na ko song na ko sori na na kàddaa wala trois wala trois. laa ilaaha illallaah. Gora Sock Tyson 2 ñu ñu ngi leewaatoo seetaan leen di ngeen ko seetan di ngeen am ralentir bi seetaan leen Gora Sock Tyson 2 mais Gora lan moo ko teex ñu ngi bëre ñoom ñaar lam fa ñu ngi bëre soogoo wax nañu oh la la lan mooy Tyson 2 est-ce que rëppul Tyson 2 est-ce que rëppul bari na góor rëpp bari na ragal naa ne am na ay kat appi man gis naa loolu. ay kat appi munu cee ñàkk yi ma fi gis munul ñàkk kat appi Tyson doy góor a soog bu ñu xeexee léegi mu jeex songu na song na daan na ko góor a soog daan na Tyson doy góor a soog daan na ko ba toog. Eh, mais recours laa gisa ragal naa dina am waaye lu mën a am la régie danañu jox euh, ralenti waaye ci li ñu mujjee gis mooy ko góor a soog daan na doomu dangu Gora Sock ndeysaan doomu dangu gis ngeen li mu jot a wax sànq nee na nañ ko jox ay moromam nañ ko jox ay moromam Tyson 2 Tyson 2 ko waaye nag léegi nee nañ du ñu parce que léegi ay mbokk lañ mbokk dafa feeñ lébu gi lébu gi la Tyson 2 mooy wane noonu gannaaw xam naa ne combat buy gaaw lay doon Fatim buur combat buy gaaw moom lay doon waaye xam nga tey xel yëpp day dellu ci ginnaaw dem ci Eumeu Sène ndax nag bul fàtte ni tey seen Eumeu Sène moo ko daan ëmb indi ko arbitre gi noonu di wax ak ñaari mbër yi ndeysaan 19 heures 58 minutes Wurawa dem na Këng laay mag dem. gis nga gis nga ne yàlla day eh. koy daan wala lan koy daan wala lan góor a sottee nga tey ci Tyson 2 góor a fàq na Tyson na ko jox seen. Tyson 2 dafa a bëre. Ah, ndax góor a deful quatre appuis. quatre appuis. Tyson 2 daan. ndax góor ndax góor a deful quatre appuis. Tyson dafa mën a bëre. góor a teeyal. la régie dañuy préparé. ci Tyson 2. la régie dañuy bërewaat. day gaaw dañuy bërewaat. mais ah dañuy bërewaat. day gaaw waaw kon lan moo taxoon arbitre sifflé. xam naa dafa juum comme keroog li amoon ci Boy Niang. la mais nag erreur bu mag a nii. waaw warul siffler warul siffler te du joxe verdict mais Gora Sock na tey ci Tyson 2 tey mais mais mais Lamine doo nit da nga ba ma gisoon ndar ak bi ma gis du benn du benn ñu ngi leewaatoo ñu ngi leewaatoo song na ko song na ko sori na daf na quatre appuis da wala trois wala trois laa ilaaha illallaah Gora Sock Tyson 2 ñu ngi leewaatoo seetaan leen di ngeen ko seetaan di ngeen am ralentir bi seetaan leen Gora Sock Tyson 2 mais Gora lan moo ko teex ñu ngi bëre ñoom ñaar lam fa ñu ngi bëre soogoo wax nañ oh la la lan mooy Tyson 2 est-ce que rëppul Tyson 2 est-ce que rëppul rëpp yi bari na góor rëpp yi bari na ragal naa ni am na ay kat appi man gis naa loolu ay kat appi munu cee ñàkk yi ma fi gis munul ñàkk kat appi Tyson 2 Gora Sock bu ñu xeexee léegi mu jeex song na song na daan na ko Gora Sock daan na Tyson 2 Gora Sock daan na ko ba toog eh, mais recours laa gisa recours ragal naan dina am waaye lu mën am la régie danañu jox ralenti waaye ci lu ñu mujjee gis mooy ko Gora Sock daan na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 sama doole sama xam-xamu bëre sama jom ak sama fit laa ko teg. waaye nag amateur doon en direct de. perpétué la ci seen point com.